Assalamualaikum mbokku internet Ibakan TV tey nak dañu séti ancien gloire ancien champion d'Afrique l'ambassadeur de Pikine le monument de Pikine lepp Pikine moy baye Pikine nigaay Pikine lepp Pikine moy euh, sunu doyen elage pap Diop ñu koy tuddé elage pap Diop Boston <laughs> tey nak ñu sét ci ko euh, diko laaj yaram mi ndax mu ngi am tan bu baax bëgg waxtaan ak mom si combat Boy ñaar bi nga xamné jogé na ci am ndam ak Balla Gaye 2 ak yi nga xam ne eh, bëgg nañ waxtaan mu daal waxtaan bu yaatu hmm. ak Diop nuyu naa la bu baax a baax naka yaram mbaa yaa ngi am tan bu ah, baax a baax Iba maa ngi lay nuyu di la fay di la fay di la sargal bu baax a baax di la souhaiter meilleurs vœux ci année bu bees bi ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm yónnee ñu yaa salaam ci barke rasulillah yi eh, àddina loolu rek moo ci nekk hmm. eh, lépp loo xam ni bopp bi romb na la rek hmm. booy woo nga gen geen ba xam ni mi ngi ñëw mhm. kon yàlla nañu yàlla yónnee jàmm euh, may wax rek ni euh, li nga xam ne lii yaa ngi ma ko ñëw di ma ko laaj mhm. euh, yàgg nga ma ko laaj mhm. du tey ndax yow maa ngi yow yàgg nañu kon ni am naa yaakaar ci ni bu fekkee làmb rek la am naa yaakaar ni ancien gloire laa ñaari yoon sur le plan national ak sur le plan international boo déggee man la sur le plan national mm-hmm. c'est parce que maa daje woon ak Mbaye Guèye mm-hmm. dajeeg Robert dajeeg Double Less dajeeg Moussa Diame dajeeg Boy Bambara dajeeg Ibou Senghor dajeeg Papa Kane dajeeg Mor Nguer dajeeg Manga dajeeg Docteur Faye Mayoro Fall ci Louga Samba Diaw Souleymane Diaw Ousmane Ngom Madiaw booy remarque na cité que cela rek ñoo ñëpp booy pambal ñii am na bëri na ma ak am ñaari yoon ñii bëri namaak ñoom ñetti yoon kon li wóor leer mooy foofu sur le plan national ancien gloire la su ma demee nag sur le plan international bul fàtte ni diggante Yougoslavie ak Bulgarie ak Roumanie en Yougoslavie yaakaar naa ni jël naa fa médaille d'or ci dëkk bu naan Skopje te foofu bëre boobu diwlin lañ lay diw ba nga tooy xëpp jox la ngemb der nga sol ma yaakaar ni euh, foofa boo fa demee ba jël fa médaille d'or wëlbatiku def ñetti Jeux olympiques Munich 72 Montréal 76 quatre 80 te bu ci nekk 4 ans fay jaar ma ñëw nag sur le plan africain jël médaille d'or ba ci Algérie première médaille d'or di attaqué deuxième médaille d'or sama tànk pironé bi damm ñu plâtré ma may eh, ñaanal Double Less de passage moo ma doon jimali ndeysaan di ma yëkkati ak plâtre bi kon yàlla na ko yàlla jégal moom itam ma jël médaille d'or ba en 1974 ñëw Égypte deux ans après jël médaille d'or ba ak argent ba ca dëkk ba ñu naan Alexandrie cinq cent kilomètres de Caire jógeti fa ñëw ak Casablanca au Maroc jël médaille de bronze bi su Moussuma génne les trois premiers kon am naa yaakaar ni sur le plan international itam doon naa fa euh, ancien gloire ñu dem euh, en France à Toulon ma def fa exhibition ñu jox ma médaille ma jóge fa ñëw Italie ñu def ma fa directeur technique defaral ma carte nationale pour faciliter samay retour ak di seet équipe ya fa ne kon yaakaar naa ni mën naa laa wax dara ci làmb yi ba. jërëjëf naka yaram bi léegi. yaram bi maa ngi am tan bu baax a baax. fa tubaarkalla maa ngi sant yàlla. Mhm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. maa ngi sant yàlla ndax euh, yàlla ba mu bindee feebar mm-hmm. dafa bind wér mm-hmm. tey it nattu la boo xam ne rek bu la ko yàlla tegee alors da ngay koy xam ne rek moom mi la ko teg moo koy teggi ndax ña dem jiitu dafa ñu lu tax yàlla yóbbu leen ñun ñi mu fi bàyyi dafa la yàlla lu tax mu téye nu fi kon ak ko matal rek dem lépp a ngi aaj ci mbiri yàlla wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaanal réew mépp jàmm hmm. ci barke Mohamed Rasulullah ndax su ma daan dem à l'étranger euh, chrétiens yeeg jullit yëpp laa demal hmm. parce que ñoo bokk réew mi hmm. li wërtalee nag maa ngi nuyu le président de la République Macky Sall ak son épouse di nuyu Youssou Ndour di nuyu le maire Timbo ak euh, Salam ñoom ñëpp maa leen nuyu ay Moustapha Ndiaye di nuyu dénk le président des mareyeurs kii Mbeng Thierno Mbeng di nuyu gars yëpp daal ku lim da ngay juum. Euh, le premier janvier seetaan nga combat Balla booy Niang. waaw le premier janvier seetaan naa combat Balla Boy Niang. waaw nan nga jàngatee combat boobu. ni ma jàngatee combat ba mooy. Uh-huh. Euh, toujours amoon naa yaakaar ci ne rek Balla euh, Boy Niang da koy daan. foo ko yaakaar foo ko tegoon. waaw parce que dama dafa am toujours faiblesse bu nekk ci Balla. boo jiitee le pied droit pour mu daan la day day sonn. day boo fàttee gos ba rek. Hmm. mu am problème. Ah, bu fekkee ni bii nag fexe na ba féete la ci côté gos ba nga ne ci digg bi. Ah. bu la jëlee. Ah. man na la daan. kon bal daa am faiblesse. waaw am na waaw bien sûr amul benn mbër bu amul faiblesse. Hmm. ba ci man mi toog. kon yéen na ngeen étudier Balla Gaye de yéen. woy étudier nañ ko parce que li wóote leer mooy. Balla bi mu ko mën seen di amal seen di daan ñaar yoon. Hmm. bul fàtte ni nag noo ànd. yéen ànd la. ah bul fàtte loolu. te itam xam nga ama seen droitier la booy ñangi di droitier mu ñëw mhm. damay dañu koy wax les les les mêmes que parce que fii la toog ma ne ko la ma la digaloon ca euh, mbër ma ca des kamu jëkkoon a bëreel tafaatim wala déedéet lag de de waaw ma ne ko la la waxoon ci lag de mhm. boo ko defoon mhm. kon wax ji du coow li du bari comme lii ma ko wax ci Balla Gaye rek waaw côté gauche la droitier nga. Mhm. fermel côté gos bi attaqué ñëw ci koom. Mhm. wala nga xaar ko bu bu ñëwee boo ko jàppee. man mhm. nga koo daan jël bu gaaw. mais dafa am sikki sàkk ci Lac 2. mais li wóote leer mooy képp koo xam ni kii yaa ngi jiital pied booy ñang di bëre ak yow jiital droite fatt sa gauche. bu la jàppee dalay lay daan. bu la waaw parce que xool ko ci euh, rakk ja Sa xool ko ci rek ni mu defee léegi arbitre sifflé. ñu léwatoo lu yàgg taxaw waaw. après Balla mépp jëli. waaw. songu Balla Gaye bi loo si. waaw c'est parce que dañu li ma ko xamaloon mooy. Hmm. il faut que dégg ko bul ñëw sacrifier bëri bi. bul sacrifier bëri bi waaw bul sacrifier bëri bi. Hmm. boo ñëwee jiital sa tànk ndeyjoor bi. waaw fattal gauche bi. Balla na peut par attendre. Balla ne peut pas boo fattee gauche bi. Hmm. Balla du xaar. Balla du xaar. bu fekkee ne bi léew ta na quelque temps rek. boo taxawee rek. moom dina la fekk si. parce que xamal ni Balla la mu daan def di daan gaa yi. Uh-huh. mais def na ko def na ko booy ñang uh-huh. jël tànk bi coppati ko kepp uh-huh. jël loxo ba loxo càmmoñ ba sentiré ko ca ndigg la waaw biij ko mm-hmm. mais booy ñang toogul parce que booy ñang a bien entraîné euh, dafa entraîné ay tànkam waaw te Balla Gaye entraîné ay tànkam Balla entraîné wul ay ba ca war mm. Balla entraîné wu ko te waxoon naa ci Bombardier ne ko bu fekkee ni bi nii nga nar a continuer mm-hmm. vaut mieux nga teel a bàyyi làmb yàlla may na la teraanga làmb hmm. xam nga làmb day dem foo xam ne fii hmm. bu la ci yàlla joxe teraanga entraînement yi war ci yow dootoo ko def uh-huh. surtout nga am soxna di jaboot hmm. ala dénk ko teraanga yàlla dénk la ko entraînement ba waroon ci yow dootoo ko def ku gis bàlla xam ne entraînement ba waroon ci moom defatu ko mënatu ko parce que làmb mooy demee noonu xam nga làmb mu ngi mel ni pooru Ndakaaru bata dem Botokose mhm. te it Balla la mu daan def ay magam rek. waaw la ko ay rakam fay. mais Balla na ci tànk bi te mënu mënu si dara lu tax. c'est parce que parce que amatul puissance bu mu ko àggalee. ba mu jëlee tànk bi. Mhm. amul puissance parce que Balla. Mhm. làmb ji lépp mi ngi ko wéeroon ci mystique. Oh, dëgg la boo xoolee mystique nga xam ni ci mystique la ko wéeroon. Ah. te kële it ñëw ak mystique. ba pare doon xale euh, di rakam. ëpp ko ëpp ka kàttan uh-huh. parce que ni ñu bëre boo xoolee xam ni uh-huh. booy ña nga ëpp kàttan uh-huh. jël tànku nit mu bàyyi laak sànk ba yor ñaari loxoom di kalkali ca kaw kooko xam nga ni euh, ñaan la ak kàttan mais rotation extérieure bi booy ñaa def loolu xanaa sa xalaat la waaw mais xam nga yooyu itam defe naa ni man je suis un professeur de la lutte dëgg la boo gisee ñi ma la limal fii ñëpp ak ñi ma la rotation extérieure boobu lan la rotation extérieure boobu waaw kooku mouvement d'ensemble la mouvement d'ensemble la. waaw parce que heure bu ñu coppatee tànk bi. waaw da koy jël kal ko ca kaw. Uh-huh. bu ko kalee ca kaw bu ko delloosee. waaw rotation lay doon bala day day day daal di topp action ba. waaw mu dellu si wéeru ko. mu féete suuf bu ko wé bu ko wéeroo. Uh-huh. day daal di jëlee tànk ba ca des pousse ko dënn bi Balla Gaye day jaaxaan. cey yàlla tiyaaf yi. Uh-huh. moo tax. Euh, may wax rek Balla nii. mais kon Boy Niang bërikat la de. non Boy Niang amul xale bu ko dàq bëri ci làmb ji parce que da xam ne Sa Thiès gisuma ko amul. Mhm. mais ku daan te Boy Niang xoolal ñi mu daan yëpp. Mhm. ñi mu daan yëpp bëri la leen daane. dëgg la Boy Niang à l'âge de dix onze ans douze ans. Mhm. la ñëw ci biir sama salle. papaam nekk deuxième entraîneur u Baba Diallo. mu ay ànd ak Mansour. ñu doon ay xale ma coiffé leen. di ànd ak ñoom ba sama doom Jaga Diop. ñëw di bëri si. comme ñoom kon yaakaar naa ni Boy Niang ku dul kii sax mën na ko daan effectivement. su ma doon yéen sax da ngeen di nekk ba mu bëreeg Modou Lo. ba Boy Niang bëreeg Modou Lo. bés bu Boy Niang bëree woon ak Modou Lo. ci ngay génn ci euh, Boy Niang. ci ngay génn ci Boy Niang. waaw ah, parce que kon Boy Niang waneegul dara. waneegul dara. ndax Boy Niang. Boy Boy Boy Niang. waaw dafa euh, non seulement euh, bëre bi sax mais dafa am ñaanu wayjur. Mhm. ku fonk ay wayjuram. dëgg la ndax nit mais noo gisee Balla ëllëgu Balla si làmb. ëllëgu Balla mooy li ma koy conseillé. man xam naa ne entraînement yi waroon ci moom. Mm-hmm. à l'heure actuelle. Mm-hmm. gaw ma detti na ko man. Mm-hmm. lii ëllëgam daal mooy. dese na combat ma Eumeu Sène li ma koy conseillé. bu bëreeg Eumeu Sène ba pare. Uh-huh. na dem defi leneen. parce que ndab kenn du ko njëdd. bu bëreeg Eumeu Sène ba pare. na bàyyi. na bàyyi làmb waaw. teraanga. Uh-huh. bu la ko yàlla dénkee. da uh-huh. xam ni yàlla dénk na la ko. tey ndax kenn du ko ñëdd. xanaa kon nga bëgg wax Balla dafa jeexal. Balla à l'heure actuelle. Ah. li mu desee. Ah. bareetul. Ah. li mu desee. waaw bareetul ndax xam naa mbër muy entraîné ak mbër mu dul entraîné. te entraînement ba war ci Balla dëgg dootu ko def. dootu ko def vaut mieux que bu bëree ama seen ba pare. mu dem liggéey jël jël alalam. liggéey leneen. jiital ay rakam. waaw loolu moko déssé ci làmb gëmatoo ne mun na ñëw au sommet. non non non li wóor te leer xam nga au sommet dafa am entre ay entraînement intensif. Hmm. que l'on peut gagner ce combat. Hmm. té entraînement intensif yoy waaw Balla dootu ko def. Balla ko def man maa la ko wax. Hmm. donc kon li wóor te leer mooy. Euh, bu bëree Eumeu Sène le conseil que je lui donne. Ah. bu mu ñëdd ndap parce que balle victoire yi mu am ci làmb. Ah. ak teranga yi mu am ci làmb.

mais soit mon bon conseil. Mhm. man lepp def lepp mag ñi dañ koy aaye. Mhm. ndax wax baaxul. Mhm. ndax ñu ngay calculer lañu ko fay buñ ko ko ñent yoon yalla ñu yalla mussel ci chat baaxul. donc kon bu fekkee ni bi ñëw na. mel jël ay yu mel c'est pas possible. c'est pas possible rëcc na ci mel noonu Gris Bordeaux te Gris Bordeaux yàllaa ko fa defal sutura mu bëre bëre mbër mu mag mais recevoir na fa coup boo xam ne bi bu ko biri Gris xooloon dëgg du du du daan Gris ndax kër coup ba mu fa recevoir Balla ma ni mm. képp koy nitam na ko wax ne ko kàlla macha allah kenn mënatula wax làmb te tuddoo ko mm. kenn mënatu jëf ci làmb te tuddoo ko le fils de Double boobu mm. li ma gis ci moom gis gisaat gisoon ko ci moom mooy li mu def ci làmb benn moroomam mënatu ko def na mu def ni ku ko gis presque bëre boobu noonu la ko booy Niang daane Boy Niang da ko daan ba ba yëg ci ko toog tiim ko noonu la defoon magam ni kon xam nga lu wër sa leer mooy à l'heure actuelle képp kuy ànd ak moom te di ko wax dëgg man Pape Diop laa wax en tant que champion d'Afrique daan bëreendoo ak baayam ànd ak baayam ma gis te baayam euh, li nga xam ni def na ko ci làmb am na lu mu ci def moom ba ñëpp xam ko kon je lui conseille na dem bu bëree ama Sène ba pare na delluwaat ba na bàyyi làmb ji jël alalam liggéeyi leneen hmm. wala muy tëgg làmb wala muy def la mais xam nga 37 ans ah. làmb boo gaañoo hmm. bokkatoo ci kon dafa gaañu boo néewee doole hmm. bokkatoo ci. waaw gisuma làmb jim ñaari làmb yi mu fi bëri yëpp amul bu mu ci déclaré wul blessure. waaw loolu bëri na temps xam nga uh-huh. bëri na. bëri loolu yi dafa am yaram yaram woo xam ni dafa am lu muy laaj. Uh-huh. parce que entraînement ba muy laaj. Uh-huh. bu fekkee ne defatu ko mooy waral blessure yooyu. kàttan ba mu waroon a am dootu ko am donc kon man dama ne la Balla Gaye 30 nangam du dara. mbër a ngi war a toll ci 40 ans sax di bëri. waaye à l'heure actuelle protéines yi protéines yeeg bëgg-bëgg jamono yeeg toogaay yeeg kalan-kalangi jamono ji ci xale bu am wërsëg ci làmb yi ci bari dootu ko def donc kon li je ce que je mhm. na dem bu bëree ama seen ba pare mhm. na bam bàyyi làmb ji mhm. te xam ni champion mais est-ce bu boobaa il ne va pas quitter par la petite porte ak li mu def no à l'heure actuelle mais rien ne nous prouve que ama seen da koy daanaat Mm-hmm. il y a ça aussi. Mm-hmm. parce que vous faites Kennedy bi romance bii mu jël si rakam Sa mm-hmm. Boy Niang daan Sa Thiès. mu ko bu ne état lay ji lay ci combat non. kon a delloo avance Non? kon. non da non na Non, na dem ji. na dem entraîné pour ko. am victoire. s'entraîne bien ama seen it a ngi entraîné parce que du toog di ko xool. il faut que mu dem entraîné ji. Mm-hmm. pour jéem a génn par la grande porte. Mm-hmm. mais lii ma gis bu ko continuer itam. Mm-hmm. bu ba rek ama seen du gis dara. mën na daan ama seen. ah si mën na daan ama seen. dégg nga man la bu entraîné. bu entraîné mën na daan ku dul ama seen. mais est ce que entraînement boobu mu war a mën a daane ama seen amati na ko. est ce que deeti na ko def. c' est ça le problème. parce que jaar naa ci ba jàll. Hmm. xanaa gisoo ñi ma la fi limal yëpp. mais mais ci mukaay Balla Gaye de keroog noo gisee mystique bi combat bu commencé. vingt deux déggoo xam nga nee naa la ci mystique la tëraloon combat bi. waaw Balla ci mystique la tëral combat bi. Boy Niang tamit ci mystique. exactement mais dafa am lu ko Boy Niang rawee. Boy Niang lan la ko rawee. li mu ko rawee mooy kàttan doole. doole bi ci desit am na feneen fu mu ko rawee. Mhm. parce que làmb ji ñii dañu naan na guddee. Mmh. Mmh. bu guddee yaa ko moom. Mhm. naan bu fekkee guddeewul yaa moom làmb ji. Mhm.

But mu leen moytuwul. Hmm. dinañu couper sa xaalis dañ lay suspendre ay 6 mois. Hmm, loolu dégg naa ko ci ji. Ah. te ji 12 mois la. Hmm. mu mois. say morom li ci des ñu ko mais boo ko defee bàyyi ji. ëllëgu booy ñaa. ëllëgu booy ñaa euh, ëllëg bu la. ma ko ah ndax bi ñu mujjee gisee. Mhm. Euh, dama ko ni jarul sax ñu gisee. booba ma nga saal ba Pikine mbooloo. waaw booba pressé ko fa fekk muy waxtaan ak ñoom mais dama la wax ne la bi ñu mujjee fii maa moom. Mhm. xamal naa ko ni li ma oote leen ma li ci yow ak bëri bi ci yow boo liggéeyee force defar sa mystique boo ba boo jàppee Balla Gaye danga koy daan. drapeau Thione Seck bi àndalee golo. non andeegu ko nag. Ah. mais am naa yaakaar ci ni. Hmm. dina ko andi. parce que drapeau Thione Seck. waaw sama xol def ci sedd. Hmm. ndax euh, alaaji Cheikh Seck. mi jur Thione Seck. wax dëgg yàlla euh, sama père la woon doon officier de police bu yànji bu ma saan a wàcc ba sumi tënni policier bi toog buntu këram ñu génne fasu course yi fasu naaru góor yi di ko si di ko sàng mu toog dama ñëw di ko tooñ naan ko ah officier de police baa ngi nii de bilaay xam nga ni bàyyi ceen bokkaloo gaa yi ak sunu yaay nogay ma gaañu ndeysaan moom itam mais dama wax ne Ablaye Naar moom itam ak Njaga Caam yàlla Njaga Caam yàlla na ko yàlla yërëm ñooñu dama leen a xam mhm. dama la wax ni la euh, drapeau boobu ñu génne tey waroon na fee fekk euh, euh, kañu ko tudde mhm. bu ko fekkoon nga xam ni kooku bokkul ak ñoom kooku wooyam ind la woon rek buy taxaw moo tax euh, waali mi nga xam ni moo jur waali mhm. waali yàlla na ko yàlla lafal cet man nag mosuñoo gisee mosuñoo toog waaye xam naa baayam ndax bi muy jàng woy ànd ak njaayloo maa daan bëri mbappat noflaay baayam it déggal ñu doon xale bu am yar li wóote leer mooy coon yàlla na ko yàlla jégal mhm. yàlla na ko teeru ci yàlla teeru ci tappi àjjana ye mhm. yàlla na fekk ni mu bàyyam Seex Sekk ndax bàyyam Seex Sekk nit la woon koo xam ni kii ku gëm yàlla la mhm. ku jullite ku baax ku tabe loola la coon jël ci moom kon am naa yaakaar ci ne euh, ki nga xam ni kii mooy doom ji di waali loolu jël na ko ci moom parce que gis naa geste boobu ci waali ah. <laughs> yaa dégg naa ko tabe la dégg naa tey nit ku baax la man gisee wuñu waaye toujours fu ma toogee maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm jàmmal ko ak yaayam ak njaboot gi ak ñoom Ablaye Naar ak ñoom Khady Seck ñu mën ni ñu leen miinoo la parce que daaw ma jóg ci kër gi Modou Lo euh, Balla Gaye Boy Niang waaw Modou Lo la war a bëreel wala dafay toog xaar euh, Tafatine Bombardier wala Sa Thiès Reug Reug lan la ñoo ñoo ñëpp daal ah. à l'heure actuelle mm-hmm. bu ma sañoon li ma jaaxal kay mooy li ñu ne combat Modou Lo buñ ah. doon ba dafa am téq-téq ma am yaakaar ci ne Modou xanaa du toog ay année tëdd bañ a bëre mhm. mais tey ci yoonu làmb waroon naa mën a bëre Boy Niang mhm. mais Ama Baldé la war a bëreel ba pare. Ama Baldé ngi bëre Gris Bordeaux. ah yëg nga ne Ama dafa blessé. combat boobu amatul yëg naa ni dafa blessé au cours de ses entraînements. loolu mën naa arrivé mbër mu nekk. mën naa loolu man na arrivé mbeur mu nek mhm. parce que dal na ma ci lamb mhm. di beure di di entraîner sama combat préparation. Mhm. am ci blessure. mais dama dal di tok mu tané yagul ma dal di ànd gën continuer sama entraînement. dem beure dal kon légui Boy Niang fan la jëm. à l'heure actuelle Boy Niang xam ku ko yalla booleel rek. ku ko yalla booleel ku ko yàlla booleel rek. ndax Boy Niang it il va pas reculer. de cette yi nga xamni ni beure won naa ñom ñoom mu del di beure ñom Hmm. Boy Niang à l'heure actuelle dafa war a avancé. Hmm. waaw kon yow d' accord combat ak Tapha Tine wala Lac de Guiers 2. Euh, Lac de Guiers mën na ñoo mën nañoo bëre. mën na bëre ak Lac de ah. ko combat boobu. Hmm. mën naa ne. waaye su doon su fekkoon ne bii daal euh, Modou Lo nangu naa bëre moom. Ah. Modou Lo lay bëre soog a bëre ak Lac de waaw lamb dafa am yoon. kon daal gis nga ne Boy Niang dina fi andi ci roi des arènes. Euh, am naa ci yaakaar. Uh-huh. parce amul kenn koo xam ni kii eh, bëre nga lu Boy Niang bëre nga bëre bu indi roi des arènes te Boy Niang mënu ko. Hmm. Eh, lan eh, lan ngay wax si Balla Gaye bi combat bi jeexee ñu ne dañ kaa sot mystiquement loolu ah, gis nga loolu. noo xam nga buñ la safee mystiquement boo daanee kenn du ko wax. kenn du ko wax. boo daanee. Hmm. duñu ne mystique nga daane. dañ naan bëri la daane. Hmm. li ñu ko fay. la ñu fay Boy lan lay xolé ba Boy diko di ko dominer mystiquement lan lay xolé ba Boy Niang di ko doole ci lamb ji ma ne Balla bu bëggee lamb na wat tak ay godaasam entraîné la mu daan entraîné bu njëkk mais gowma est-ce que lol detti na mën a ne gëmatoo yow daal gëmoo ne entraînement ba No gëm c'est-à-dire gëm na Balla mais entraînement ba war ci mom la gëmatu ndax entraînement dafa métti uh-huh. c'est par un entraînement intensif que l'on peut gagner ses combats ndax bëre nag bëri la tudd mais santoo mooy leen entraîner lu mu daan bëri rek bëri na ko ci Boy Niang taxul mu daan Boy Niang donc kon am na nuage bu fane ne bu bëggee bëri na dem entraîner ji dem entraîner ji moo gën mais à l'heure actuelle man gëwma ni entraînement ba woon ci moom bi muy daan gaay gëmatuma ko ni mën na ko de waaw mm. ah, ndax dal na ma dem naa ba entraînement yi ma daan entraîné mhm. wér na ma ni mënatuma ko parce que lu ci nekk da xool sa yaram ndax attan na ko wala déet mhm. du question mhm. mais dafa am yu bari yoo xam ni boo dee xool euh, ay protéines yoo daan naan wala nga xool yoo xam ni daana la yokk doole ah, yooyu yëpp day percuter sa yaram ak choc yi ngay def gis loo man mais docteur seet nañ ma fu ne mais nañ ma amuloo benn feebar li ci li choc yi amoon ci yow moo nekk ci ay problème mu yàq la alors wax nañu ni may def ak ak matériel yi ma jox entraînement ak euh, yu may naan loolu la coono rek la ne li woote mooy mm-hmm. amul benn maladie boo xam ne mi ngi ci man maa ngi sant yàlla baax mm-hmm. di sant yàlla yéen tamit ak sëñ Babacar Si lan ngay tàggatoo li may tàggatoo amateur la sopp di ñaan ci kàttanu yàlla ak yonent bi la ma doon wax naan yàlla ak yonent bi ak Cheikh Tidiane Serif fas Fass li ca Baxdaad Sadibou Nimzat Bamba sa Touba Limaamu Laay Yoof Bu Kunta Njaasaan Cheikh al Umar Fuutiyu Taal ca Fuuta Alaaji Malik ca Tiwaawan Cheikh al ca Kawlax ñooñu ñoo féree Sénégal moo tax kon bokk Sénégal yëpp ku lim da juum maa ngi nuyu sëñ Cheikh Tidiane mu sëñ Mansour si borom daara ji maa ngi lay nettali benn anecdote dama mas dem ci sëñ Mansour borom daara ji di ko papa naa bëgg nga ñaanal ma damay bëre ku mën a bëre te dama ko bëgg a daan te ku mu bëreel nga naaj te eh, eh, bëggumaa dem ci ardo mu ne ma fu ardo ne mën na ko ci boori làmb ji ku gaañu moo faj mu ne ma doo fa jaar daal di ma jama xam ñu ngi bëgg a magee nag de papa Diop mbërka démb mii nga xam ni bii ñeenti ñeenti fan la am ci àdduna ñu lëmas ko ci sër indi ko ci kanamu sëñ Babacar Si nga tok ma toog sëñ Babacar ñaanal ko ñu soog ko yóbbu tuddi ko ngeen tëji ko tey moo taxaw fi naan ma may bëri ci stade ba grand combat lu la bopp bi gen séentul génn moo tax sama baay boobu borom daara ji ah, yàlla na ko yàlla jéggal ci dara ji yonent bi ak mboolu mu jullit ndax alaaji Amat Seck Demba sama maam di sama nijaayu papa alaaji Amat Seck Demba ak Astu sek mu mu mu wajuru jigéenu borom daara ñoo bokk ndey ak baay kon maa ngi nuyu Abu Bakar, di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér guddal fanam sëñ Muntaxa Mbàkke maa ngi koy ñaanal loolu moom itam yàlla ko yàlla may wér guddal fanam sëñ Bas Baara sëñ Bas moom ci jëm boppam sama soppe boobu maa ngi koy nuyu ndax yàlla nee na yonent bi nee na sëñ Tuubaa nee na du ci yokk virgil xalifa bi nee na du ci wàññi virgule di nuyu euh, Samba euh, Ahmadou Kara Mbàkke moom itam maa koy nuyu di nuyu sëñ Mamoun maa ngi koy nuyu di sëñ ab di nuyu sëñ Abdou Karim akaramu ahla ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu nag Youssou Ndour en personne sama rakk jooju nga xam ni du ma rëkk maa ngi koy nuyu bu baax moom Mara Dieng ak Mbaye euh, euh, euh, Mbaye Gueye Faye kooku Mbaye Gueye Faye 5-5 moomu bàyyam sama grand la woon di ma di ma tëggal bu masaana tëggal mbay Gueye maam góor ga pare day xëcc cool mi ne xaaral ma tëggal Pape fekk Ibou Ndiaye yéex a ñëw. kon dama lay wax ne la lépp loo xam ne maa ngi koy ñaan ci barke Mouhamadou Rasulullah yal na yàlla def jàmm ci réew mi ñoom salaam maa ngi leen di nuyu di nuyu Moustapha Ndiaye Thierno nga ñii ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Gowon njaay ñoo ñi nga xam ne wax dëgg yàlla maa ànd ak ñoom ci jeunesse ci làmb ñoom Modou Kara nga xam ne booy Niang mii booy Niang ma ñu ko tuddee ma daan eh, ànd ak kooku it maa ko jàngaloon bëre mm. moo tax Boy Niang ko duppi bu jëlee ci turandoom dana naqare daan looy dénk dernière question looy dénk Balla Gaye 2 ak Boy Niang li ma leen di dénk Balla Gaye 2 ak Boy Niang Balla Gaye la mu daan def ci entraînement yàlla na ko man bu ko continuer man naa amaat ndam ci làmb ji waaye ba tey gëwma ko ndax entraînement ba muy entraîner ba tax mu dellu si waat na fa mu war a dellusi si waaw mu dellu si eh, dana ma xaw a jaaxal.

fii mbër yi ci Pikine muy Ama Baldé di Boy Niang di Eumeu seen ba ci ñoom jaga sama doom bi ak ñoom soxok yeneen mbër yëpp ku ma ci ko ku ci génne fii Pikine di bëre ji damay ñaan yàlla nga daan ndax samay poulain lañu wax dëgg yàlla hmm. kon nag Boy Niang daal maa ngi koy wax ni ko na yokk entraînement te bañ a gëmmentu te bañ a nelaw na entraîné bu baax a baax ndax am na lu koy xaar ba dëgg la daan na Balla Gaye mais ak seegul ba tey des na de te li mu des entraînement koy maye teel a tëdd teel a yeewu dem entraîné ji gën a fonk ay waajuram gën a fonk ay ñaanam di sangatu bu baax nag parce que kat xar gu fuufa ku ko xeeb fuuf ni la fuuf kon booy ñang mhm. yàlla la yàlla jàppale ci barke rasulilaay sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di sant nag euh, di leen gërëm bu baax a baax nag di la gërëm yow mi nga xam ne mii yow doom nga rakk nga jarbaan nga nit ku baax nga ndax gis naa li ngay sonn ci làmb li ngay sonn ci làmb ji làmb ji mun la ko donc kon am si yëfi bopp moo la jël na la yàlla gën a yaatal sa yëf dara ji yeneen bi sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen baalu àq di wax ni CNG bi yàlla na ko yàlla yàggal ñu yàgg a defar euh, làmb ji bu baax a baax a baax ku ma ci tudd lit dama laa fàtt xel day fattu waaye li wërtalee daal

kon vaut mieux que ndax maa ngi ni bëri naa combat waaye mbëri léegi ku ci combat retraité ndax at baat benn yoon la ñuy bëri bi mm. te man samedi dimanche altine fête mm. loolu maa ko ci falay Balde sama mag yàlla na ko dara ji salaahu salaam di nuyu ñëpp daal jërëjëf euh, di wax mm. euh, di président de la république euh, monsieur Macky Sall président de tous les sénégalais maa ngi koy baamtuwaat maa ngi koy nuyu bu baax moo soxnaam di leen sargal bu baax di nuyu Youssou Ndour bu baax di nuyu le maire Timbo bu baax di muy nuyu waa pikin yëpp di nuyu nag koo xam ne ki mënuma ko jàkk nu ñàkk bañ a nuyu muy Thierno Ndom gis nga Thierno Ndom mi ngi jàppale gars yi ci biir di leen jàppale ci biti ba ci man mii kon dama lay wax ne la Thierno Ndom itam ku bëgg a Macky ku bëgg a soxnaam maa ngi koy ñaanal yàlla moom itam mu gën a mën a jàppale sportif fi Pikine yëpp jërëjëf. jërëjëf euh, Père Pape Diop lii lañ leen andiloon mbokk Iba Kane TV di leen jox rendez bu beneen yoon. waaw après combat Tapha Tine Bombardier. dinañ ci ñëwaat waxtaan. exactement Sa Thiès Reug bu jeexee. exactement dinañ ci ñëw waxtaan parce que il faut ñuy seeti le vieux. pour gën a mun ko delloo parce que waxtaan ak moom. dëgg la dëgg da koy da beneen niveau. dëgg la dëgg la jërëjëf Père jërëjëf kontaan merci.